dén li nga xam ne ni askan Sénégal yëpp loolu doon ñaan mais euh, dans les commentaires damay dégg ñaan c'est Wally Ballago Seck moo ko yóbbu mais si biir vidéo bi Pascal tuddul benn tur en tout cas neen benn kilifa la mais pourquoi Pascal def vidéo bi te Pascal ak Wally Ballago Seck xam nañ leen ñoom ñaar seen diggante bañ na sax cousin am la donc da koy liggéey du bari bari bari wala rek ñoom ñaar dañoon daje aéroport comme Pascal mu ko waxee on sait pas def def na li nga xam ne nii lu baax la alors si c'est bon bi nekk nañ dem déglu kii di Pascal ñëwaat ñëwaat si plateau bi gën ko faram fàcce. yoro Yoro comédien Yoro de yàlla def na jàmm am na benn bonne volonté boo xam ne dama mbokkante moom aéroport bi moo ko jël en charge et quand je prise en charge lépp quoi. mi ngi ci yoonu avion nag mais dama wax dëkk bi muy dem donc ñu ngi sant yàlla ko war léegi nii ah suñu rakk jaa nii alhamdulilah donc. Euh, feebaram bi du woon ay jaaxaan du woon pour dóor comme ni ko nit ñi doon waxee certains certaines personnes tu vois mi ngi gën a gëm wax dëgg yàlla c'est la première fois que je le vois mais sa benn kàddu rek mooy waxal alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin waxaat ko waxaat ko voilà donc la famille il est là on s'est croisé à l'aéroport hmm? ah yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na am na ñu ñu baax ñu nekk ci dëkk bi ah xam ne boole ñu dara fi wax voilà donc Samba ngi nii xam naa ñoo nar a bokk vol Samba Yoro le comédien alors moo ngi noonu euh, moom xam ne suñu xarit la ñun ñëpp donc ñoo ngi koy ñaanal moom tamit yàlla may ko tan foofu mu jëm yàlla may ko fa tan tan mu daal di dellusiwaat ba mën a continuer li nga xam ne tamit mooy liggéeyam si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors Ousse si yow laay commencé parce que yéen ñaar bokk ngeen euh, seen yu bëri bëri euh, même muy doogaa feebar bi mu koy doogaa dal sax bokk ñu ko indi. si plateau bi ñu waxtaanee ko pour ñu mhm. bëri jàppale ko mhm. alors tey boo gisee euh, nit ñi benn bonne volonté daal def lii ñu ngi si tudd Wally Ballago Seck mais leeraguñ exactement mhm. mais tamit est-ce que bu nekkoon moom la dina ko def mais la moo tax suñu xel des moom mooy Pascal mi nga xam ni moom ma koy filmé foofu sa aéroport waaw moom moo dañ naan alhamdulilah euh, alhamdulilah man dama ciy sant ndax feebar bi Europe bi mu koy jàmbat jàmbatee na ko ci man yàlla dogal na mu feebar ko nekkee ko palaato di ko tourner euh, ba foog naa ay produit bu mujjee def yoroman la ko defandool loolu yàlla dogal na ko ma xamoon tànk bi lu ci nekk bu baax ñu jokkoo ci te it télé Sénégal gii moo ko njëkk a siiwal wax ci mhm. loolu la yàlla dogal bu ci ay nit jotee ci télé Sénégal gii la génne ñu wax te foog naa jëmm ji toog jour ba ma koy wax maa ngi koy tudd di tudd Fadel moom Abdou Salim. Mhm. te fekk ko fi. fi moo tax lu amul seede rek baaxul. Mhm. bi may wax ci Fadel Dakar Buzz nitu valeur bi mu doon ku am valeur ku am full ku am fayda ku bëri jom ku nangu sonn itamit ci doomu aadama fii lañ ko njëkk a waxee. Mhm. yàlla dogal nag tawat bi am nu mu mel xëy na sax bu xawee yéex yàlla dogal na yi mbokk yi doon bañ la ay buñ xam nga aada cosaan dafa am mm-hmm. te ñoom dañuy ay làkkat di ko gën a bàyyi xel mm-hmm. waaw moo tax yoro sax bu demutoon ba yenn heure yi xëy na loolu la waaye dañuy sant ndax moom moomoo ñun jour bi ñu ko fi tegee waxtaan ci ñun dañoo man Wally Seck laa joxoñ mm-hmm. ne ko dofee fu lu yàlla yàlla tegee ci kaw defoo fi lu ñu lay bàyyee xel defoo fi lu méttiwaay rek mu ne Wally Ballago Seck defoo fi itamit lu xuri waay mu ne Wally Ballago Seck suñu borom moo la sepp def la benn lumière loolu nag boo ci nekkee danga koy xam mooy yéen ñi nga xamante ni jot ngeen jàng œuvrer pour Dieu à travers les hommes mm-hmm. waaw liggéeyal yàlla waaye nag ci biir doomu aadama yi day doon it li gën foog naa moomoo jour bi ñuy wax ñun ñëpp suñu kàddu ci tuuma ñun mm-hmm. Wally Seck lañ joxoñ mm-hmm. ne ko foo nekk na nga xool yoro ndax nag nit ñi bari neen fi mm-hmm. ban volontaire yi bëri fi mu am ay mbokk ndax ci loon jim dëkk rek ay jàmbaaram fa mais waxut kenn yow la nga nekk fekk say morom nag nekk fekk say morom mu bàyyi nekk fekk say rakk nekk fekk say morom nekk fekk ñeneen ak ñeneen mu ba fi ñëpp ne waali Ballago Seck yow laa bëgg ngeen won sama vidéo bi dama bëgg mu jàppale ma su ko defee war na. Mhm. su ko deful war na bu ko defee du force bu ko deful itamit du force ndax alalu jàmbur ku ci mere doomu aadama yëpp nga ñu. wax dëgg fa yàlla léegi nag man moom lii su ma ci waxee moomu ko Wally def na ci wala defu ci jàpp na ci wala jàpp ci damay fen Mm-hmm. dërëm xamuma ko ci tous ba tous booloo en tout cas xam naa ci état moom yore yi nekkoon mm-hmm. xam naa yàlla bi ko doon gën a taxaw di jot ndax man mii eh, ñaari nit ba ñett woo nañ ma ne ma sa waa ji gis neen nangam sàngam dañ la ma ne leen déedéet jox leen numéro woo leen ko seen bopp wala ngeen xool ci numéro yi affiché ndax xaalis dafa garaaw mm-hmm. man newuma ci game boobu ne leen déedéet bu mu xam ni sax maa leen jox numéro bi. woo leen ko daal bu ngeen koy jàppale ngeen jàppale ko te yàlla rek tax man sama yoon nekku ci damaa publier doon wax dama def sama statut doon wax dama def sama TikTok doon jàppale yor parce que sekk nañ ko ma ak moom. parce que xam naa ni mu ngi wax ak man ndax eh nana ñun ci suñ vidéo biñ lancé yoro ci la ko nit ñi tàmbalee jëli. dëgg la ko xel. Mm-hmm. ci laa ci wax ak alaaji Seexu Gueye saa neex ci laa ci wax ñànku ci lañ ko gisee ci la affaire bi wëree ba am na mu mel video bi ñu fi tegoon moom moo ma ko yónnee du kenn après yàlla dogal na sa la fa seen bës dem su ma juumul juróom su ak yow vocal mu ma teg ko fii muy leer ma am ci lu leer waaye nag amuma ci ko waali def na ci wala defu ci wax dëgg fa yàlla lu ma ci wax moom damay fen en tout cas lenn laay wax mooy Pascal def na geste bu rafet Pascal nag nit la koo xamante ni ku baax la. Hmm. Pascal nii la mel moom lu mu fekkee lu rafet da koy wane naturellement. Hmm. Pascal moom vie boobu lay dund. Hmm. ba nit ku dëgg la xam nga man nan laay jàppee ku dëgg mooy wax li nekk ci yow Pascal dañ ko wax ci Wally Seck laaj ko mu ne leen mënuma gis si ku koy wax dëgg wax ko dëgg man du ma ko wax dëgg lu ko neex rek laa koy wax xam nga kooku dafa di. <laughs> ah ci plateau bi la maanaam bokkul man man kuy assumer man j'aime kuy assumer Pascal Waly Seck nii nag mu ne leen sama yoon nekku ci de ne leen Waly mënul mënul def ma ni faute la man lu mu def dama non man dama ne que euh, dama ko fan lu mu def neex na ma ne mënumaa gis sikkam te lu mu def dama naan baax na sama yoon nekku ci xam nga kooku kooku kale na boppam kooku kon bu fekkee dafa am fooy wax ak moom wala ngay dem ak moom fenn fii foog naa yaa koy tooñ ñu ngi naan nag yoru suñu borom bi nga xamante ni médecin yi dañuy faj waaye yàlla mooy wéral mhm. médecin ñooy faj waaye yàlla mooy wéral yàlla muy wéral nag yàlla na ko wéral delloo ci ko ci ñun ndax ñun ñëpp bégal nañu d'accord waaw bégal nañu daal ab sa c'est un frère mm-hmm. euh, ñu partage même métier bi parce que li may wax rek mooy euh, bien vrai que suñu bokk plateau mais mi ngi bokk ak ay nit ñoo xamante ne ñu ma jege la lañu. ku ci mel ni mm-hmm. Nooré ni Ñanku euh, ak Yoro. Yoro un bi nga xam ne loolu. Euh, voilà peut-être euh, li li ñuy wax rek lu jot yomb xëy na peut-être moment bii la ko suñu borom tuddee woon ni euh, dinañ ko jël en charge pour mu mhm. dem faju ji man d'une part dama ko xaw a mere parce que dafa feebaroon ba sonn mhm. feebaru sonn bon benn côté rek lay tëddee à chaque instant da nga ko doon gis à partir de 16h day live sur TikTok. Mhm. donc peut-être mënoon na am keneen koo xamante ni moo koy defal mais moom am personne moo doon def loolu. te aussi loolu laa ko doon xaw a mere parce que boo feebaree ba mënoo yenn yi il faut nga nga nga nga nga nga nga nga dal pour mën a pour mën a ñëwaat en force. Mhm. aussi euh, di sant saa neex parce que gis naa budul benn yoon du ñaari yoon mu toog plateau euh, wax ci làmmiñu boppam ni am na ñu ko booleel pour ñu faj ko donc loolu c'est à saluer parce que euh, nit bu defee lu baax. Ah, da nga koy wax. waaw donc mm-hmm. neex aussi tamit jàpp na ci combat bi. Mm-hmm. aussi dégg naa ci làmmiñu boppam mu ni yoro mi nga xamante ni moom doonoon liggéeyal euh, def na ci lépp loo xamante ni mën na ko ci ki ko yóbbu nag xamuñu ko. Mm-hmm. Euh, nañ jàpp ni c'est un bu gis ni doomu réewam moo feebar nekk ci situation mu jël ko euh, daal di ko yóbbu donc c'est un geste à saluer. di ko ñaanal yàlla na ko suñu boroom wéral ba mën a ñibbisiwaat continuer li nga xamante ni moom lay def mu di aar. aussi di wax ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci milieu bi. Mhm. nanu nanu fagaru parce que bii ak bii baaxuñu. surtout loolu làmmiñ ak bët baaxuñu euh, te euh, mu doon ñu wax ci yow lu baax. musiba la ñu wax ci yow lu bon aussi tamit musiba la. Mm. te ñun suñu génération bi dañuy bëgg dugg ci kut ko kut rek fël la Ousmane bu la waxee fi mu jaar ba egg si fii tey wala Sané fi mu jaar ba egg fii tey wala peut-être benn pot wax la fi mu jaar ba egg si fii tey wala peut-être benn euh, roqee ñaan keneen ak keneen wax la fi ñu jaar tey ba egg si fii tey. Mm. da ngay xamante ni euh, peut-être xëy ñu xëy rek lépp sotti. Mm. Euh, te tepp tepp moo gën moo gën yuréet <coughs> te. am na ci loo xamante ni daal buñ ci nekkee nanu nanu moytu bët nanu moytu làmmiñ mhm. nanu raar nanu fonk suñu image mhm. parce que du du du du lépp lañ mën a wax waaye daal ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla yóbbu ko ci jàmm mu dem faju ci jàmm mën a retrouver waat nga xamante ni moo di santeem su ko defee nag après mu ñëwaat ci réew mi parce que ci réew mi la bokk d'accord merci beaucoup kàddu yi am na solo bu baax a baax alors Nana waaw comme li Abdou Sali wax ak Nooré ni rek wax nañu lépp ah di ko masaw encore une fois parce que tawat dafa metti mhm. rawatina nga tawat te amuloo loo fajoo donc euh, on est de tout cœur avec lui di ko wax ni ko massa li ko daal dafa metti voilà comme comme li ma wax rek waaye nag euh, noo leen dafa suñu souligner lu am solo muy ba fekkee waali moom moo ko def puisque euh, amaguñu luñ ci wóor torop torop xamaguñu kan moo def lii muy waali Sidi Diop ba ci bu dee nóoree ni sax cest à dafa def acte bu bu bu noble bu mhm. rafet mhm. voilà pour pour ñu xamee ko noonu parce que euh, dama ko wax ci samay début ma ne la feebar dafa metti rawatina nga feebar te amuloo loo fajoo kon ki ko yëkkati yóbbu ko ak fu mu ko mën a yóbbu même bu amul même bu amul tan sax te dañu koy ñaanal mu wér ak jàmm mhm. mais yéene gi àgg na dañuy ñaan nag yàlla na suñu borom yàlla mottali yéeneem ci jëf ju rafet ji nga xam ne jëfal na ko euh, du ma ne nag waali kese la ko jëfal mais euh, du ma ne euh, yoro de kese la ko jëfal ki jëf-jëf ji ak ku mën a doon jëfalu ko yoro de kese da koo jëfal askanu Yoro 2 ak ñi nga xam ne bu dee benn fan Yoro 2 mii bégal na leen. Mhm. donc kooku yàlla na ko suñu borom yàlla fay te yàlla mottali yéeneem ba Yoro mi ñëwaat ak sagoom ci barke Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf kàddu yi am na solo trop trop comme ni ñu koy waxee rek encore une fois ñoo koy remercier bu baax a baax xaw ma kan la waaye def na jëf ju rafet def na jëf ju baax jëf ji nga xamee ni ñu toog si plateau bi yëpp bëggoon nañu bëggoon nañu ko def waaye moo ngi noonu gëm naa ni euh, comme ni ñu koy waxee yàlla si loxoom la ko jaare donc yal na ko yàlla fay moom tamit waaye tamit yow tamit yàlla mooy ko wér si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors nañu wax si léegi li nga xam ne nii tamit moom moo def polémique. Euh,